politique bi nag walaay bëgguma cee wax waaye mënuma ci ñàkk wax ndax wallahi rey nañ nit ñi fatt nañ nit ñi sonal nañu leen yàq nañ seen àdduna kilifa yoo xam ne yi dañu ne ay kilifa lañ yu jiitu war a yor àdduna ni ñoo koy doxal seen àdduna jëpp jeexaluñ ko ci lu may sàcc ak fen ak saagaantee ka defal lu bon def defante du bon dong seen diggante ana ñii ana ñii bu leen gone yu ndaw yi toppee réew mi fan la jëm bu fekkee ne ñii nii politiciens yii bu fekkee ne ñoo mel nii ana ana ana ana ana ana xale yi leen di xool nag bu ëllëgee ñoom fan lañu jëm buñ leen royee àdduna tukki te xam ne fan yii ni ngeen déggee gouvernement bii politiciens yii seen melokaan yu bon yii lii dara jaru war nañoo rus war nañoo xoolaat doomu aadama yi leen faloon war nañoo noppi seen nekk seen gannaaw waaye amuñu lu ñu rus amuñ lu ñuy jomm amuñ faaliwuñu dara sonal nañ doomu adama yi ba boo gisee lii ñu ko def lépp nag misaal bi ma lay jox mu yomb lool mooy gis nga ñoom ay workat lañu ànduñoo kenn ku ñu àndal tey boo léegi ñu war la train bii ñu dugg nii muy daw dañoo jàpp ne train baa ngi mal gaar bi te bu demee day gaare balaa gaare nag ñoom ñu cëppeelu ñoom wër dëkk bi xaaraat train ba ca kanam bu dikkee ñu langaan langaan ci xaw ma dégg ngeen misaal mi leen wax train bi day gaare ñoom xam nañ ne train bi day gaare bala ñu ci dëkk bi ñu cëppeelu wër dëkk bi nag taxawaat ca kanam bu beneen beneen train départ ñu langaat ca boobu waaye nun nag noo war a am fayda ju toll ni nag xàmmee leen nag xam ne ñii jëmuñ fenn nag ñu jéem seet lu ñu jëflante ñoom melokaan yi ñu melokaan gënu koo bon nit koo xam ne kii li lay wax ci suba ci bëccëg la koy weddi ci saa yi fi mu ko waxe woon la koy weddewaat te du am lu mu ci rus nga di ko wóolu kat kooku boo ko da ngay nax sa bopp doom kon nañ xoolaat gaa yi xam ne ñii jëmuñ fenn Macky Sall li ma lay dénk mooy gaa yi nga àndal ay sàcc dong lañ ay workat dong lañ du ñu dara dimbalewuñ la itam nag dimbalewuñ la dangaa defe nit ñi dañ laa bañ wóoluwuñ la bañuñu la wóolu nañu la waaye ñii nga àndal ñoo baaxul coronavirus baa ngi nii di lëmbe àdduna bi sa ministère yëpp taxaw nañu wax nit ñi lànk xam nañ ne coronavirus am na waaye nag yàlla dafa waxoon ci alxuraan ne naafeq yi buñ dikkee ne la yow a yónente bi dëgg la yow a yónente bi waaye ñoom dañuy fen looloo ci am buñ dikkee ne la seere ne yaay yónente bi dëgg la yaa yónente bi waaye ñoom na dañuy fen ñoom sa ministère yi tam looloo leen dal maa nit ñi xam nañu ne lii coronavirus la waaye ñu leen koy wax ñoom lañ gëm moo tax yëf yi mel nii parce que politiciens yi nga xam ne ñi ngi mel nit di wane nii seen bopp ñii kat xam nga ne gëmuñ kenn wóoluwuñ kenn joxuñ kenn cër nit ñi itam foofu lañ leen teg luñ wax lu ne seen gannaaw loxo lañ ko teg coronavirus yi bu doon faagaagal doomu aadama itam booy boo nga sensé communication si gars yi nga xam ne ay politiciens la ñuy lépp lu ñu wax nit ñi dañ ko wet kon xoolaatal ni ngay jëflanteeg ñoom te xam ne tànki wor la lañ aw ñu ngi cëppeelu bar benn nag bala ñoo bàyyi nag ñoom ñëpp cëppeelu ba bàyyi li ci géew bi balay booba nag na nga jël say matukaay mbay mi nit ñi soxla lañ dimbal lool wax nañu ne jiw wi niñ ko jotee baaxut comme jàll nag nee ñu nga dimbal leen ci engrais bi parce que réew mi réew mi suuf si dafa dee ku ciy bay te amoo engrais mbay ma du génne dara dangay bay lu jeex nun ñiy bay de sëñ bi boo xoolee ay kilomètres la ñuy bay waaye duñ ci am dara ndax suuf si dafa dee nañ ñu dimbale ci engrais bañ mën cee jot di la waatal ne soo fexee ba engrais bi doy nga fexe ba sàcc yi bàyyi sàcc gii ñuy sàcc léegi tey nga gis réew mi dañ la bayal dañ la bayal ab dund dañ la jur yaral ci jur loo xam ne boo liggéey doo ko jëgaani waaye sàcc yi nga xam ne lu waaye denc ñu sàcc ko te boo sàgganee ñu rey la boole ci loolu de moom da ngeen cee war a wax bu baax taxaw ci dara bii mi réew mi lu may loolu àll bi mënatuñoo bay mënatuñoo sàmm boo gisee nag lépp lu ñu wax ñu weddi ko dara warulu ko lu may coronavirus bi boo gisee ñu di ko weddi mooy nit ñi sa ministère yeeg sa gars yi ñu nekk bañ jógee ba léegi ay milliards rek la ñuy xëccoo nit ku yorul ñaari téeméer ci biir ci ci boosam nag ngay xëccoo ay milliards te boolewoo ko ca xam nga ne kooka dootu la teg fen nit ñi dañ leen a wóoladiku xëccooy milliards aka tuumaalanteeg a yéeganteeg wàcc te nit ñi amuñ luñ lekk loolu mën naa sàkk pexe bu baax a baax xam leen ni ñu sonn nañu te seen yaakaar yi bëgg a tas kon noo ngi lay waxaat yow président yow lañ fal xoolaatal yëf te xool ni ngay jëflanteeg nit ñi. te gën a jege kilifay diine yi gis nga rëq-rëq boo am rek da ngaa jege wut kilifay diine yi waaye gis nga boo leen jegee li wérte woo dañ la teg yoon woo xam ne yoon wi wu jub lay doon te kilifay diine yi lépp lu ñu wax nit ñi dañ ko def waaye nag bu fekkee boolewul boolewuñ leen leen ci dañuy toog jàpp seen ak jàmbur rek noo ngi nuyu bokki bokki bokki jullit yépp noo ngi noo ngi jaale mboolem kilifa yi fi bàyyi ko yàlla na yàlla xaroo leen aljanna yéen ñi fi nekk nii yàlla yàlla faj aajo defar sunu mbir yépp def ñuy dëgg dëgg ay julit waaye def ñuy dëgg dëgg taalibe ba li sëriñ bi bëgg ci yàlla bëgg ko ci ñun yonent ñu defal ko nam ko bëgg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf